waaw salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal ah alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di julli ci yàlla suñu borom bu baax a baax a baax a baax a baax di sant yàlla suñu borom di julli ci yonent bi sayyidina sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine yi ah di gën a tàllal suñu loxo kilifa diine yi pour ñu gën a ñaanal réew mi ndax jàmm fi la lépp xaj ñu ngi santat yàlla ginnaaw jàmm ñëwaatee ah ginnaaw ay nag jàmm ñu ngi kontaan ci jeunesse bi population bi ñu ngi kontaan ci réew mi yépp ah ñu ngi bëgg ci àdduna bi yépp ñi nga xam ni tey lépp ne nekk na ci jàmm te ñoom ñoo ko combattre ba mu nekk ci jàmm kon yàlla ñu yàlla jàppale ba yokk jàmm ci réew mais nag dafa am benn appel bu ma bëgg a ah man nag. ci lii rek maanaam nañu nekk ci jàmm rek te te te setal suñu réew ndax Sénégal ñun ñoo ko moom te amuñu lu dul Sénégal moo tax ñu bàyyi réew yépp ñëw toog Sénégal bëgg a suñu bopp fii biir Sénégal nañu jàppalante te yéenante jàmm ministre de la de de l'urbanisme ñu ngi lay siyaar Abdoulaye Sow ñu ngi lay béggee bu baax jeunes yi laay njëkk a waxal population bi na ñëpp génn ñi nekk Médina ñi nekk parcelle ñi nekk fépp fu manifestation amoon ak fu manifestation amul rek na jeunes yëpp génn population bi yëpp génn xeex xeex bi bale suñu dëkk bi rafetalaat ko setal ko ndax réew mi suñu réew la ñu jël mbalit yépp xool nañu ko def taal ko wala ñu sànni ko fu ñu ko war a sànni ministre de l'urbanisme Abdoulaye Sow ñu ngi lay lancé appel nga génnee moyens génnee bagage yépp tas ko ci koñ yi nga xam ni tey fépp war nañ fa mën a bale nga taj fa bagage yi muy ay rato ay bale ay ay ay ay ay puus-puus lépp loo xam ne nag war na mën a setal réew mi nag génnee ko jox ko seni man maa ci jiitu maa ngi fépp man man fu ñu ma woo dinaa leen wuy si incha allah rabbi sol sama caaya takk sama euh, jàjj ñëw jàpp ci liggéey bi ndax loolu rek mooy jëmale réew mi Sénégal Sénégal kanam nañu jàppalante jeunesse bi yëpp nañ génn population bi yëpp génn ñu bale suñu koñ yi bale suñu tali yi setalaat suñu réew mi ndax Sénégal jàmm rek moo fi xaj suñu paree nag ñu xeex beneen combat boo xam ne mooy combat gendarmerie bi gendarmerie bi nga xam ne tey moom la loxo bi dagg te as aar askan wi rek tax ko cee jóg ndax loolu la ñu wax te loolu mooy dëgg ñu jàppale ko jéem a xool nu ñu def ci ay mu def ay don jàppale ko pour ay njabootam ak avenir am incha allahu rabbi bu ñu paree jublu ci civil bi nga xam ni moom tamit loxoom bi dagg na loxoom bi yàqu na ñu jàppale ko ndax moom tamit loxo boobu rek la yaakaaroon suñu paree nag dem seeti ñi nga xam ni tey ñoo ci ñàkk seen bakkan nag ñëpp lépp mënuñu koo defandoo waaye dañuy def benn benn nànk-nànk nañu jàppale réew mi xam ni Sénégal jàmm rek moo taxat jaajëf.